xam nañu it ne lépp lu ñu nas ci réew mi bu ñu ko ñaanee fii ci Touba def ko waaye bu ñu santee xalif ba pare dañ lay sant man personnellement sa taalibe maa lay sant ci sa taxawaay ci réew mi waaye ci sa taxawaay ci njaboot gi dafa am jëmm yuy dalal xel te sa jëmm bokk na ci ñi nga xam day dalal suñu xel ñun parce que bu ñu la gisee jàng ci bu ñu la dégloo it jàng ci moo tax tey ñu ne dinañ ñëw ziyaare la ñaanal la yàlla yàlla yàggal la fi yow tamit te nga wër yàlla kattanal la ba fi nga bëgg a yegg ci yoon wi yàlla yeggal la ko fi sëriñ bi damay sant ñi ma àndal yëpp ñenn yi di njoppatu sëriñ Touba. li tax ma leen di sant xam naa ne cër moo tax bu ma duggee ci dëkk bi lu ñu def ñu bàyyi ko ñu ànd fu may siyaare ñu ànd te am na lu bari lu ñu waroon a def yi waaye nag nit bu la jàppee boo gisee ki nga xam mooy seen kilifa nga jote ci moom danga koy seede ñii nga xam ne njobootu Serigne Touba lañ dëkk Touba maa ngi leen di sant di leen gërëm ci taxaw bi ñu taxaw sama wet bu ma fi ñëwee taxawuñ nag sama wet taxawaayu politicien waaye dañ taxaw en tant que taalibe ak ay sëriñam waaye ay ay nit ak mbokkam bu loolu wéyee di sant mbay peex xam naa li lay sant bariwul mais man dama lay sant parce que yow yaay santaate yaay yëkkati nit ñi di wàcc sa bopp te defe naa ne kuy wër taalibe ci yow la koy gis nga nag kuy fàtte sa bopp di yëkkati nit ñi yaay vrai taalibe moo tax yow tamit dañ lay ñaanal di la sant ci sa taxawaay yàlla Serigne Touba lay fayal boppam parce que ku taxawu yoon wi nga di sant Abdou Ndiaye di sant ki nga xam ne mooy libaas ñooñu dëkkuñu fii waaye bu ma jógee ñu jóg di sant maam góor Matar Diouf ak ñi fi nekk yëpp Mohamed Sylla sama rakka loolu ñëpp xam nañ ko sëñ at sëñ ateex nag maa ngi jéggalu sëñ bi sëñ ateex dellu sul ci waar wi parce que téye la ndakaaru nga géej fii wala nga yéex a ñëw boobu baaxul maa ngi ci jéggalu en tout cas daal mbokk yi maa ngi leen di sant di ñaan yàlla yàlla def jàmm ci réew mi te jàmm sax dana am ci réew mi mënta ñàkk taxaw bi ngeen ci taxaw jàmm mënta ñàkk ci réew mi man dey taalibe la boo xam ne sama xol sedd na li tax sama xol sedd mooy taalibe bu toogee ba njabootu Serigne Touba mun laa xàmmee sax ne la na nga def jaar ci sa tur war ngaa sant parce que nit mun ngaa nekk taalibe ba jóge fi te doo ci gis kenn ku jokku ci wala ku nekk deretu Sëriñ Tuuba moo tax dingeen fi yàgg di ngeen te di ngeen wër parce que loolooy loolooy loolooy njëriñu réew mi man nag ama sa pay wax naa ko léegi parce que dama am ci yow cofeel ci sa taxawaay nit nag Sénégal ki nga soppul la ñëpp di xam waaye ñi soppante dañ ko war di waxante parce que bu yàggee nit ñi def ko leçon nit ci doxinam ak waxinam dina ci ami soppe yu bari soppe yooyu nag nañ koy fësal suñ ko fësalee bu nekkee link bu yàgg nit ñi soppante ëpp ñi nga xam ne soppante wuñ su ko defee jàmm am ci réew mi kon maa ngi sant ñëpp di ñaan màggalu jàmm képp ku fi ñëw ak ku ñëwul lépp lu nit ñaan ci lu nekk njëriñ yàlla na ko sëriñ Tuubaa def yàlla na nekk xéewal ci réew mi di sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ñu ngi nuyu euh, Maxtaar Ba moom li nga xam ne moo fi ñëw ak délégation bi mu àndal bépp ci ñëw ci siyaare si ci màgg gi ndax ñëwoon na ànd ak kilifaam président waaye mu dellusiwaat ci turu taalibeem kon ñu ngi lay nuyu bu baax di la sant di la gërëm di fetlu suñu digg ak yow ndax daanaka wax nga lépp ndax xam nañ sa cofee ci ñun xam sa jàpp xam sa yitte ci waxtu wu rek xamit yoon wu ñor gim la ñor ak bëgg gi nga bëgg Sëriñ Tuubaa ba mu gën la lépp loolu nag ku ñu ko xam ci yow ku ne ba tax sa su seen kilifa di yónnee li ci ëpp xam gi mu xam sa yitte ci dëkk bi mu yónni la loolu nag ñu ngi lay ñaanal kon ci barkeb Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne kum nangu kum téyel boppam dara du yàqu ci seen biir yàlla na la téyel boppam kon ñu ngi lay rafetu sa taxawaay di la sant di la gërëm di la ñaanal ci barkeem mu yokk sa taxawaay dëgëral la doole kàttan gi ba li ngay yéene ci ginnaaw sa kilifa nga àggale ko ma kawe sa jot di di la sant yi rawatina njabootu Sëriñ Tuubaa gi niñ leen jàppe tañ seetlu ko ci yow ndax boo jugee ñu ànd ak yow rek loolu ci sa jikko la ak saw doxin ndax ab taalibe kat wërteem ci kenn ñaar waaye dafa war rafet ak jëme ci ñëpp képp ku mu gis nga bokk ci sëriñ bi moo xam ne war ma ji war na la sa digg moom ndax sëriñ Souhaïbou mas naa wax ne sëriñ Tuubaa nee na ku teral ku bokk ci man yàlla teral la ba faw ndax ne safaan ba itam na noonu kon loolu itam gis gi gis nga ànd ak suñ njaboot gi ñu ngi koy ñu ngi la ci sant di la ci gërëm di ko rafetlu bu baax di la xam ne loo leen jàppee rek sëriñ bi nga ko jàppee kon ñu ngi leen di nuyu rawatina suñ Modou Habib mi di suñ doom waaye juróom sëriñ Cheikh Faye di suñ mag di suñu xarit di suñ lépp ak ateex sa moom xam naa yaa ngi ko tooñ sa waaye kon boo boo génnee nga yeddaat ko <laughs> ak Mouhamed Sylla mi nga xam ne moom itam lépp la ci kër gi ak mboolem ñi nga ànd ak ñëpp daal Abdoulaye Touré bàyyiwuñ kenn ñi rafetlu daal sa digg ñoom ndax njaboot suñ Tuubaa gi daal ndax ñoom ñoo la koy seeral ñoo la koy seeral foo nekkut di la ko seeral ci foo teew kon nag ñi ci ñaaral li ngay jëf ci ñoom ngir jëm suñ Tuubaa yàlla la ko suñ Tuubaa fay tam gën laa yóbbu ñu tam ñi ngi fetlu suñ diggee yow bu baax ndax xam na ne li am ci suñ diggee yow lépp def nga ko ba matal ko ba weesu kon nag suñ xam ne lu di defal la jëmm wa tax yàlla na fayal la bopp seytaanu yàllaw anta samiu la si